yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baxda sayidina mawlana muhammad ibni abdillah wa alihi wa sahbihi wa xeyri xadimihi wa sallama tasliman mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di dellu siwaat ak yéen ci jotaay bi nu baaxoo amal ak yéen ci weeru koor wi ni ñu ko baaxoo woon defee ci jamono yu wees rek mooy tontu laaj yi nga xamante ne jot na fee jàll tey ñuy laaj ci weeru koor ki nga xamante ni dafa woor ba noppi di du julli waxtu juróom euh, woor farata la julli itam farata la ni woor nekkee farata noonu la julli nekkee farata ndax sunu borom dafa wax ne farata yi lislaam yonent bi salaam bañ ko koy bañ ko koy laaj mu koy nettali ci xaddis dafa waxoon ne buniyal islaamu ala xamsin lislaam ponk yi ñu ngi ko tënk ci juróom shahada an shahadatu an laa ilaha illallah mooy seere ne yàlla buur la wa iqaami salaati ak julli gannaaw bi wa hajjul bayti wa sawmu ñoo ci bokk wa itaay zakat itam ci la ci la ci la ànd muy juróomi ponk lislaam yi mooy natt asaka julli ak woor ak aj màkka ni ci julli nekkee ponk noonu la ci woor nekkee ponk kon képp koo xamante ni daa woor te du julli dana am woor mooy dana am tuyaabay koor waaye dana am bàkkaarub ñàkk julli ni ki nga xamante ni julli nit bu ko yéexee sax dana ci am bakkaar kon noonu ni lay xamee itam ne ñàkk julli woor te doo julli ñàkk julli gi da am bakkaar waaye dinga am tuyaabay koor yàqul kooram nag waaye xañ na boppam eh, tuyaabay julli te dana am bakkaarub ñàkk julli itam ba ca des mooy laaj ki nga xamante ni dafa woor ba noppi yendoo nelaw ci bëccëgu wooru koor yi woor ba noppi yendoo nelaw amaana du yàq koor gi ndax nelaw ci weeru koor sax moo gën nelaw ci leneen lu dul weeru koor maanaam ki woor di nelaw sax moo gën ki nga xamante ni woorul kon woor di nelaw yàqul koor gi waaye nag xañ na boppam yiw wu rëy ndax mënoon na caa jàng alxuraan wala yu mel ba ci des mu jàll ci ki nga xamante ni dafa woor di di def li nga xam ne moom la ñuy wax jamono bi dañuy rey temps ngir bañ a koor gi moo ne mënoon nañoo bañ rey temps mënoon nañoo dundal temps boobu ndax temps cher ci dund doomu aadama dundal gi nag moo nañ ko dundal ci jàng alxuraan wala téye sa kurus di def ay salaatu ala nabi wala téye sa kurus di ci tudd yàlla ye benn ci yooyu boo ci defoon di nga ci am tuyaaba gu rëy goo xamante ni boo ko defoon ci lu dul koor doo ko ci am kon euh, woor di kart mooy lido wala yu mel wala woor di nelaw wala woor di ñàkk julli nañ xam ne benn ci yooyu gënul seeni tolluwaay nag noonu la demee euh, boo wooree nag war ngaa tënk say cër ci mu bañ a jëm ci lenn loo xam ne neexul yàlla ndax sëriñ bi waxoon na ne asaw mu an yasuumu kulla odwin woor moom mooy nga fexe ba tënk say cër ba du jëm ci lu neexul yàlla suñu borom ndax ba saa imin mahal laysa euh, euh, isruba saa'imin mahal jamaaha laysa lahu fiihi siwal majaaha bëriwaa a koo xamante ni mën naa woor waaye du am ci kooram googa lu dul ànd gim ànd ak mbooloo mi koo xam ne dafay xëy suba woor ba ngoon jot kenn du ko ci fay lenn lu mooy xiifam nga mu ca am daal la ci am day mel ne ku xëy yendoo xiifal waaye du am tuyaabay koor lanay waral lool nag mooy woor ba noppi di perte sa temps ci loo xamante ni amul benn njëriñ mooy lu mel ne carte wala foo wala li ñuy tuddee raytan ba ci des laaj ni indi na koo xamante ni dafay laaj ndax mën na am liggéey boo xamante ni mën naa tere nit ki mu woor bu dee li ñu xam daanaka firndeluñ ne am na benn liggéey boo xam ne mën naa tere nit ki woor bépp liggéey bu nit kiy liggéey rek bu xëyee war na koo booleek woor bu dee ñi nga xamante nag seen liggéey dafa jëm ci lu mel ne togg wala ñuy liggéey liggéey bu metti boo xamante ni dañuy xalaat ni mën naa bañ ànd ak koor ñu ba liggéey boobee te woor moom mooy gën ci ñoom wala bu fekkee mënuñoo ñàkk liggéey ba bu ñu xëyee nañu yéene woor nañu yéene ne dañoo fas yéene woor ànd ak koor gi su ñu demee ba liggéey bi metti ba mënatuñoo continuer koor gi ñu dog ko ngir ngànt waaye na leen leer ne dem nañ ba yam fa ñu mën a yem su boobaa dañ koy dog ngir ngànt bis booba da leen di war ñu war ko fayaat waaye nag amul benn liggéey boo xam ne nit ki war na koo def ba mu tere koo woor kon loolu moom mooy li nga xamante ni moom la ñu indi woon ngir leeral ko ci laaj yi nga xam ne moom lañ jàpp tey kon ñu dikk ci yóbbalu bis bi yóbbalu bis bi nag liñ ci tànn tey dafay nekk xadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko waxoon dafa waxoon ne yéem na ñaar ñi ñu ne ko ñooñ ñan la mu ne mooy ki nga xamante ni woor na weeru koor ba koor gi jàll te fexewul góorgóorlu ci ba tàqalikoo ak ay bàkkaaram ndax bëriwaa na naafile yi ñuy diggee ci weeru koor yoo xam ne benn bu ko ci nit ki defee sunu borom jéggal ko ay bàkkaaram bëriwaa na itam ay jëf yoo xamante ni bu ko ci nit jëfee sunu borom mën na ko jéggal bàkkaaram waaye nag woor ba koor gi jeex te defoo luy tax yàlla jéggal la say bàkkaar yonent bi nee na yéem na kooku ñaareel bi nga xam ne ba tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéem naa ko mooy ki nga xamante ne dund naa ak ay waajuram ñu nekkandoo ak moom ci kaw suuf ñaari waajuram di dund te góorgóorluwul ci ñoom sàkku seen ngërëm ba ñu bàyyi ko fi wan ko ginnaaw kooku itam yéem na ko kon nanu góorgóorluwaat bu baax a baax ci weeru koor lu mën a jëf ci lu baax ñu góorgóorlu ci ndax yonent bi nee woon na sayyidu shuhuri shahru ramadan maanaam sangu weer yi mooy weeru koor ayaami mooy sangu bis yi mooy bésub aljuma kon war na noo góorgóorlu ci weeru koor ndax yàlla sunu borom defal nañu ci taw feexu am benn bis bu ci nekk boo xam ne moo gën junniy weer genn guddi gu gën junniy weer moo wax ne ina inna anzalnaahu fii laylatil xadri inna anzalnaahu googi min fii laylatil xadri wax na ci biir saar ba ni xayrun min alfi shahri xayrun min alfi shahri moo gën junniy weer lu gën nag loolee te junniy weer wax nañu mooy toll ak 80 ans ci dund doomu aadama bi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 rakaataani képp koo xam ne julli na ci ñaari raka benn raka bu nekk mu jàng ci faatixatul kitaab ak lixlaas te mooy xul huwallaahu ahad juróomi yoon sunu boroom dana ko jéggal ay bakkaaram te dana mel ne koo xamante ni julli na junni raka sunu borom dana ko fay loolu ba noppi itam dana mel ne koo xamante ni woor na junni at noonu ñu la ko sunu borom di fayee te yool ba mu ko waajalal ëllëg ca na moom ak yàlla sunu borom rek ñoom ñoo koy xam. بالبئس والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا